الذين قال مولانا شبراهيم في حقهم ألا فاذكر الصديق الثاني حبيبنا فقد أنفق الأموال عمر أنفسه وهرول إلى ذكر السراج ملازنا وزا عمر الفاروق من لم يوسوس وثلث بذي النورين عثمان مادحا فقد بدد الأموال في الله منفسا وحبي وزير البدر باب علومه علي أبي السبتين ليثا مقلنسا بجاه رسول الله وصحبه جملة فنفس كروبي نفس الكرب نفسا asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ummatu islaamiya ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel si weer bi nga xamante ni mooy shahru ramadan mubarak nekk weeru ngëneel comme ni ko xadis bi waxee weer boo xamante ni njëlbeen gi yërmande la digg bi nekk njëggal waaye mujj goreel si safara di ñaan yàlla bu baax yàlla may ñetti maqaam yëpp yàlla nañ yàlla boole si ñi muy yërëm boole ñu si ñu muy jéggal boole ñu si ñu muy goreel si safara ñu ngi seen ndokkeel mboolem julit waaye rawatina ñi nga xamante ni ñooy suivre seen bii di At-Tahawun TV nekk chaîne boo xamante ni lu ko tax a jug rek mooy dundal xam-xam yëkkati xam-xam tasaare xam-xam si àddina bi yëpp nga xamante ni fi julit mën a nekk te am lu ko lënd si diinam mën ko dabaatal si chaîne bi si ay darsu yu am solo si ay waxtaan si ay émission yoo xamante ni lépp xam-xam lay doon ñoo ngi ndokkeel ñëpp comme ni ñu ko waxee woon si fan yi di passé émission bi ñu leen présenté woon di bànneexu koor tay jii lañ ko bëgg door comme ñu leen ko waxé won si fan yi di passé at TV mo leen indil émission bu am solo biñ ba bànneexu koor émission bo xamanteni dafa ñëw rek ngir wétali ko ak yeen ci ay dars yu am solo ci ay émission yu am solo émission yo xamanteni wax dëgg yalla képp koy déllu rek da nga jëriñu bu baax sa diine waye da nga am lu wétali ko sa koor ñu andi seen nak borom xam-xam bu mag ala alimun gestu kat bind kat ko ni kuñ mil la si internet bi mi tassare xam-xam waye kuñ mil la si groupe whatsapp bi mu fe tassare xam-xam mi am solo mi Oustaz Assane ñaan Oustaz ñu leen ñu nuyu di la ziyaara bu baax ñu wacce sa wàcc di la comme ñu ko waxe won si affiche bi in nañ lu man ñent tem yu am solo séddale ko si ñeenti semaine yi nga xamante ni mooy daw si weer bi semaine bu nekk ñu jégleel ko benn waxtaan benn thème premier semaine ñoo ko jégleel xusnu xuluq français naan ko bonne manière maanaam rafet jikko deuxième semaine bi ñu jégleel ko sillatur sillatur rahimi français naan ko lien de sang mooy jokk mbokk troisième semaine bi ñu jégleel ko al infaqu fi sabilillah France na ko dépensé pour l'amour d'Allah quatrième semaine bi ñu jégleel ko ahwalu yawm al qiyamati condition du jour de la résurrection kon ñeent moodo yi lañ tànn indi leen ko si koor gi ngir ñu waxtaanee ko ñaani si usa ñaan kon tey ñu war waxtaanee moodo mu njëkk bi mi husnul xuluq jikko ju rafet ñu tànn si beneen moodo si biir husnul xuluq maanaam bi ñu dëppee maanaa bi maanaam lan mooy sunu xuluq lan mooy jikko ju rafet ak li ay leeral kon Oustaz Assane Niang ñu ngi lay bàyyee kàddu gi nga waxtaanal ñi si lan mooy jikko ju rafet ak leeral yu si aju wasalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat wa tubaaraku alxarakat wa tudcafu alxasanat ثم الصلاة بأكملها مع السلام بأطمه على أشرف خلقه وأكرم رسله سيدنا محمد بهجة الكون وديائه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بوكي jullit yu tedd yi fu waay mën a nekk ci rawatina yéen yi nga xam ne yéenay ànd ak ñun di ñuy topp ci seen bi nga xam ne mooy at-taawunu ñu ngi leen ñu nuyu baat yu sell yu màgg yu tedd yooyu di assalaamu aleykum wa rahmatullahi ay ginnaaw loolu ñu ngi ndokkeel mboolem jullit ci weer wu màgg bu tedd bi nga xam ne mooy weeru koor yàlla faratal ko ci xeet gi ngir ñi jàngatee ci lu bari waaye dëgg-dëgg objectif bu ci gën a rëy rek mooy ñi amee ci ak ragal yàlla euh, ñu ngi ndokkeel ñëpp ci weer bu weer la boo xam ne weeru promotion la yonent bi nee na ñeel na waajoo xam ne weeru koor bi ñëw na ba jeex mu dese ak bàkkaar loolu nag bu amee dara luñ ci déggee du dara rek lu dul ne weer wi weer ak njëggal la ndax weer bi fukki fan yu ci njëkk te nekk ci nii yal yàlla may ñi màngu ko ci jàmm ak salaam yonent bi nee na fukki fan yi yërmaane yàlla re fukki fan yu ci topp di digg bi yonent bi nañ jëggal la fukki fan yu mujj yi yonent bi nee na goreel sa safara la kon dëgg-dëgg weer bi weeru ngëneel la euh, doy na ci rek la yonent bi waxoon law taalama ummati ma fi ramadaana la tamannaw an takuna sannata kulluha ramadaanu sama xeet buñ xamoon lu ci weeru koor dañ géeju wala ñuy bëgg sax at mi yëpp di weeru koor ngeen gëneel gu ci nekk kon ñu ngi ciy ndokkeel booleem jullit di ñaan yàlla kàttanal ñi dëgëral ñi ban man ka mottali ci jàmm ak salaam euh, alxaaji ñu ngi lay ndokkeel beneen yoon di la nuyu yow it di la jox sa wàccuwaay waaye di am kontante ak mbégte bu baax ci dalal goñi dalal ci émission bi nga xam ne mooy bànneexu koor nga xam ne dara taxu kaa jóg lu dul rek gunge jullit ñi ci weeru koor wi waaye nag gunge leen ci ay thèmes yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne temu mu actualité la ñi mën ci waxtaan ci diiran Ramadan bi comme noo ko waxee rek suñ première semaine bii. ñu war a ànd ak yéen macha allah ci thème bu am solo boobu nga xam ne mooy jikko ju rafet ñu ngi lay ndokkeel beneen yoon ci laaj bu am solo boobu ci lan mooy jikko ah, ndax mbir mu nekk dëgg-dëgg balaa nga ci xuus wala di ciy sori da ngaa war a xam loolu lan lay tekki eh, kon ñu ngi rafetlu laaj boobu bu baax a baax jikko nag man damay wax ne. amul benn nation wala benn réew wala benn diine jooy dem lu dul soxla nañ jikko ju rafet ndax nit ñi seen nekkin ak lu ñuy nekkee ak lu ñuy dëkkee jikko ju rafet rek moo man moo mën a tax loolu mën a nekk loolu mën a antu eer bu jikko yi nekk buñ demee ba jikko yi rafet yi nekkatul fii rek xam nañ ne ñi fa nekk dootuñ ay nit waaye leneen lañ la ñu tuddee moo tax Ahmed Shawqi bindukat boobu dafa wax ne وإنما الأمم بالأغلاق ما بقيت وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كون نينا نيت ني بوبول بي جيك ناسيون بي لولين في باي موي جيكو يي تي جيكو يو باخ يي مكارم الاخلاق يي اير بو جيكو يي ديمي رك موي نيت ني موم اموتوج كون دغ دغ تيم لا بو ام سولو رواتينا تي وير بو ماغ بي ني وركا تا واختاني جيكو نا بوين كاي واخ wala jikko ji rafet balaa dara lan mooy xuluq jikko jikko borom xam-xam yi boo demee ci lu mel ni ixyaul ulumu diini wala nga dem ci lu mel ni minhajul muslim da ngay gis ne ñoom ñëpp luñ tekki jikko mooy ne jikko benn mbir la boo xam ne wala benn melokaan la boo xam ne dafay sax ci bakkan bi mu nekk melokaan boo xam ne jëf yi ci ci moom lay jugee ko ci moom la ñuy gongee ko moo xam jëf ju baax la wala jëf ju bon boo xam jëf ju rafet la wala jëf ju ñaaw ci kem nag nit ki nu muy defaree melokaan boobu nu mu koy yaree rek ci lay amee ay jikko moo tax kon jikko buñ koy wax nekkul loo xam ne lu ñuy làmb daj la wala lu ñu xool ne jikko jaa ngi nii mais ay melokaan la yoo xam ne ni nit ki moo koy jëf ñi gis ko te nee na loolu benn melokaan la boo xam ne mu ngi sax ci bakkanu doomu aadama bi dégg nga ci jëf yi mboolem ay jëfam ci loolu lay jógee ko kon ala kulli alim loolu mooy jikko léegi nag melokaan boobu bu fekkee ne yar nañ ko ci bëgg lu baax ak bëgg lu rafet da ngay gis ne mboolem ay jëfam moom doomu aadama dafay nekk lu rafet dafay nekk lu baax dafay méngoog diine boobaa nag ñu mën a tuddee loolu jikko rafet bu fekkee safaan bala nag neenal nañ ko sàgganee nañ melokaan boobu da ngay gis ne mboolem jëf yu fay jugee ci melokaan boobu dafay nekk ay jëf yu bon ay jëf yu ñaaw boobaa ñu mën a tuddee loolu jikko ju bon kon li moy jikko manam ben melokaan la bo xamne ne mu ngi sax ci bakara doomu aadama bi mboolem jëfam yi ci lay juggé ko ci lañu juggé ci lañu goggé ko légui nak bu fekké ne ci istilahan wala ci shar'a borom qam xam lan lañu firi husul khulqi xulqi da ngay gis ne dañuy firi husul khulqi moy talaqatul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adha ani naasi borom qam xam boy xol li lañu lañ jikko ju rafet moy koo xam ne sa xar-xaram dafay fecceeku dafay yàjj dafay rafet ku la gis ñeme la ku la gis mën a waxtaan ak yow ñeme dugganteeg yow lii ci jikko lii lañ firee jikko ji rafet ak lan mooy koo xam ne dafay mën a def teraanga dafay mën a def teraanga ci kàttanam ci dooleem ci alalam ci lépp lii ci jikko ji rafet yuñ firee jikko ji rafet la bokk beneen mooy wa kaful asa anin naasi nga fexe ba bul lor nit ñi waaw doo lor nit ñi ci sa làmmiñ doo lor nit ñi ci say ci say loxo lii bokk na ci jikko ji rafet moo tax borom xam-xam yi ci bëri lii lañ fi lii lañ fi jikko ji rafet boo demee ci ku mel ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ñuy firi lay jikko ji rafet ba muy dégg abu hurayrata radiallahu anhu daf ko ne ko yaa aba hurayrata alayka bi xusnil xulqi yow abu hurayrata maa ngi lay dégg ci rafet jikko ba mu ko waxee loolu Abu Hurayra te dafa wax yonent bi ne ko yow yonent bi lan booy xusnul xulqi lan booy rafet jikko yonent bi ne ko huwa an tasila man qataaka wa taafuwa am man salamaka wa tuutiya man xaramaka yonent bi daf ne ko jikko ji rafet mooy képp koo xam ne daf laa dagg yow bàyyi la nga jokk ko kon da ngay gis ne jokk mbokk bi nga xam ne bokk na su suñ tem yi sax dafay dugg ci jikko ji rafet képp koo xam ne dagg na la nga jokk ko mu ne képp koo xam ne tamit daf laa tooñ nga jéggal ko baal ko ndeysaan loolu lu am solo te yu ci nekk dañ ci ñëw beneen bi nee na képp koo xam ne daf laa xañ yow jox ko da ngay gis ne kon al infaqu fi sabilillah bokk ci suñ tamit sax dafay bokk ci suñ jikko dafay bokk ci dégg ci dafay dugg ci jikko ji wastul xulqi kon yonent bi lii la firee lii la firee moom jikko ju rafet mooy yow doomu aadama yow mi ñuy déglu yonent bi nee na xusnul xulqi mooy jikko ju rafet mooy képp ku la dagg yow jokk ko bul wax ne ndax maa bàyyi ma bàyyi ko wala dàggam képp koo xam ne dafa laa dagg yow xoolal noo koy jokkee képp koo xam ne bii joxe ñëpp bii jox mën naa jox ñëpp yow tëb la bàyyi la yow booy joxe njëkkeel ci moom jox ko képp koo xam ne daf laa tooñ jéggal ko baal ko yonent bi nee na lii mooy jikko ju rafet ala ku diyaalin kon xam naa alxaaj yi dañ lay delloo kàddu gi ci lii la ñuy indiwoon ci point bi ci thème bi nga xam ne mooy jikko ju rafet di wax rek ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ci rafet ci yàlla lu ci dëngte ci juumte ci jàmbu xew bii la di wax ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñi ñi oor weer wi kàttan nañ ñi dëgëral ñi bañ mën kaawar ci jàmm ak salaam kon lii lañ leen indiloon tey ci jikko ju rafet ci lan mooy jikko kon in uridu ila al islaaha ma rajaa rafu ddiini wa sunnati allati تجاهلها الأقوام في كل قرية